jërë ngeen jëf ubbil yëgle kaay gi di Ligzo TV li gën a fës ci boppi yi mooy kat ñii nga xamante ne ñoo di waa axlu birik ginnaaw bi ñu génnee seen son boobu loolu amee nag Ngaaka Blindé moom it dafa a garaaw kii di baaru zero stress dafa génn wax ay wax yu gën a garaaw a garaaw yi ñu dem déglu loolu bandiwu leen may leen ñu jàmm da di bandi bandilu rek yéen américains yi ngeen di toppandoo àndandoo ci affaire clash affaire de rab bu ñu ne rab américain yi ñoo ko moom affaire de classe affaire de gang ñoom ñoo ko moom ñooñu ñoo bandi ñooñu seen i gang ak seeni i classante day am ak ganwoon dañuy doxantoo ay bal pistolet ak ganwoon fekk la nga taxaw ci concert ñu ak ganwoon la ñooñu dañuy rayante yéen da ngeen di bandi bandi yéen Sénégal yi ngeen yëpp rek mais tout sauf nag ngeen nekk ci internet bi di diviser wante ay plagu oto wala ngeen ne ci internet bi naan ma dagg sa koy dugal ko ci cin li soo génnee sa néegu góor bul dugg sa néegu baay parce que boo duggee sa néegu yaay maag sa baay ñoo fay tase trop c'est trop am na yoo xam ne bu yàggee day liiru reewaange ay mag ñoo leen di déglu ay kilifa am na yoo xam ne nag réew mi moomuñu ko bu leen ñu fonton ah ngeen il faut que ngeen wàccee niveau bi lii lan la rab la bokk saytaane yu xamul dara yi nekk fii naan na diw génnee 24 heures na diw génnee kee ñu ngi xaar kee lii mooy mooy neexal rab bi ay saaga dugg ci ay parents ay tarixa nii ngeen di def ba artiste wax fi lu ëpp na ngeen doog a jóg amee ko nag mel ne tàngal ci gémmiñ di càqam-càqami il faut ngeen arrêté